Nasri joxoñ ko ne ana baabi madinatu ilm wa ali ana madinatu ilm wa ali baabuha ana man mii Muhammad madinatul ilm man maay dëkk xam-xam wa aliyu baabuha aliyu mooy bunt ba ku jaaro ci aliyu doo dugg kon lu Seydina Ali wax lu dëggul Seydina Ali moo ne xamsatun tazidu fil umr juróom a ngi nii dafay yokk fan képp ku bëgg fan gudd fan na nga def li bi njëkk lan la wax mu ne silatu rahim jokk mbokk mooy li ñu fi andi tey képp kuy jokk mbokk kuy yàgg la jamono ñëpp xam nañ ne Abu Lahab ku sonnal Seydina Muhammad ba yàlla wàccee aaya naan tabbat yada abi lahab dafa doon saaga Seydina Muhammad di ko ŋaññ turam dëgg-dëgg mooy Abdul Uzza waaye xas bi mu xas sayidna Muhammad yàlla wuutu ko ci xas ka bene tabbat yata yàqu na dootul baax nekk te mooy Abu Lahab safara ba yonent bi demee Màkka ba Badar am gannaaw Badar mu dee doomam jigéen dugg ci lislaam di xaala fu mu tuur ci mbedd ñu naan ko kii kan mooy doomu Abu Jahl séeféer bu bon ba kii ko kii moo ko jur te jullit la waaye Seydina Mohamed lan la def mu dem ci jàkka ja ba mu jullee mu ne tey jii bu kenn réer sa kër ñu ne lu xew mu ne ñëpp nañu dajaloo tey mi ngi réer ji kër xaala saxaaba yëpp dajaloo toog mu ne na ngeen yëg ne kii di xaala bi ngeen di xas ci biir dëkk bi ne baayam mooy ku ko di abu abu abu abu lahab ne baayam boobu la de ak sama baay ñoo bokk benn baay kii sama mbokk la deretam mooy sama deret yu yuqam mooy sama yuq siditam mooy sama sidit ku ko bëggal bëggal nga ma ku ko ŋàññ ŋàññ nga ma seetal jokk mbokk bi ku baayam dem ba yàlla xas ko ci alquran doomi kooku ñu koy xas deret mbokk yëngu nga dajale saaba yëpp di rey di kër kookale jokk mbokk fii la mën a kon ku jokk mbokk yàlla jokk la képp ku dakk mbokk yàlla dakk la am na ko ñëw ci Seydina Mohamed ne ko ñaanaw ma yonent na ko waa dinaa la ñaanal mu wax ko ba ñetti yoon yonent bi ñaanal mu jóg dem Aboubacar na sang bi yow di daawoo def ni ku la ne ñaanal ma da ko doon ñaanal lu tee nga ñaanal kii mu ne kii ñett fan moo ko des mu def te bu ma ñaanee yàlla wér di boppam te yàlla du wér di boppam te ma lu ma ñaan yàlla yàlla def ma bëgg a andi des ma bañ a andi désordre ci nguurab yàlla bi ñu toog ñetti fan passé ñetti semaine passé ñetti weer passé waa ji deewul Aboubacar ne ko yow sang bi yow la yàlla wax noo maa yantiqu anil hawa in huwa illa wax yàlla moo la ko wax lool ndaal bi nga doon luñ ca tànk ndoxob yàlla waa ji deewul de mu ne ko yëg naa ko ba mu fi jógee dafa dégg ay mbokk yu dogoo ay xarit yu dogoo ay mbokk yi bañante mu dem di wax seen diggante ba mu rata yàlla fay ko benn bés bu nekk def na ko fukki at dana dundaat fanweer ak soog a de tekki kon képp kuy dog mbokk da nga yàqule da nga dellu ginnaaw naa tekki boo tekki woon it da nga mujj ñu la yàlla kon benn ngóob ku bëgg sa gudd da ngay jokk mbokk ni nga def ba ay mbokk jàmbur boo ko defee nga jubóog say mbokk kon benn ngóob mu def ñeent ñetteel ñaareelu mooy birul waalidiin baaxe say way jóg sawaun sawaan sawain yëpp wér na ci naxu sawa kaanu muslimin aw kafirin sa jub na nga ko baaxe bu ñu nekk ay jullit ak bu ñu nekk ay yéeféer donte dafa ne boot ma ma dem jaamu ji xëram boot ko bul jaamu waaye yóbbu ko ba mu wàcc ci buntu ba taawal oto bi damay dem église ba taalal ci buntu église bi xaar ma taxawal xaar ko mu duggaat nga delloo ko kër bi lu sa yoon ci diinaam seetal njuréel ga seetal juróom-ñeenti weer ci biiru koo nekk mu lay naanee di la lekkee di la nelewee kara ba ngay judd sans gagne sans perte doom bu dee góor la buy judd dafay supp jalañu waaye bu dee jigéen dafay ngalañu ngalañu mooy sàmbaawu tànk yi dem ci kaw mu demee gannaaw góor moo ñëwee kanam moo tax buñ ne euh, parité entre l'homme et la femme nekk ba yomal xiyam jigéen ak góor mënut a yem mënut a yem même biir góor buy jur dafay suppu jaloon nii lay dikkee jigéen buy génn nii lay def tànk yi dem ci kaw bopp bi ñoo suuf sinon dafay dikkee siis foog ñu dafa ko césarienne César benn nit la woon moo nekkoon buuri Rome romain yi le Byzantin seen capital moo doon Constanta moom lañu naan léegi Istanbul mooy deuxième ville bu turc moom moom la njëkk a xotti biiru yaayam génne ko moo tuddoon César arab nañ ko Qaysar sëñ Tuba mi ngi koy wax nuurun azimun qad bihu qusura Qaysara man kaana fi ummil qura makkata xayral hurum mooy Qaysar boobal moom la njëkk a xotti biiru yaayam génne ko moo tax ñu ko tuddee Césarien ndax moom moo tudd César doom bu dikkeelu bopp rek foog ñu xotti biiru yaayam sinon mun dafay dee ci mat jigéen buy góor buy judd dafa yëngal loxo ndeyjoor ba nga xam ne dara takkatu ko lii mooy matu mu daal di ko teg ci dënnam yëngal loxo càmmoñ ba nga xam ne dara téye ko mu daal di ko teg mel ni kuy julli ba def xabdu mu yëngal tànk ndeyjooram yëngal tànk ca yaayam mi ngi biiju kan moo mën a fay ndey ci lu xat doom yëngu ba xam ne dara takkuta mu soog a supp jalan yaay yuuxu boobu di soog a ñëw mu wàcc si matu ko daal dafa ci mu génn bu dee jigéen dafay ngalañu mooy demee gannaaw ni kon wayjur boo ko màggalee jox ko cëram kenn du la gën a gudd fan da nga raw say maas loo sumb mu sotti loo jéem mu antu loo dogu yàlla defal la yonent yàlla Muhammad dajal na sahaaba yëpp ñu war seeni fas jël seen ngànnaay foog ne ci jihaad lañ jëm muy dañal di daniel ba ñëw ci benn ndànd foy foy mu ne cib sëgg ba sikkimam laal dënnam mu ne puut ñu ne ko lan la mu jooy ne gannaaw yàlla ci tax ñu naan Mouhamed di yaay Aminata moo tëdd fii ñu ne foogal nañu ci xare lañ jëm mu ne gën a mag xare ca lañ jëman mooy kii am na benn sahaaba bu ñu dee ibnu alqama am nañu ne ibnu salaam damay tudd lépp ndax tey jam nit dafa yomb muy sukuraat te l'islam bu ne bu nit di sukkalaat na bopp bi pare bët saalum tànk yi pare bët gànnaar comme ni muy tëdd ci bàmmeelam bu ko mënul na tànk yi pare penk bopp bi pare sow comme kuy euh, kuy julli bi daanu bu xaj nekkee ci kër gi nañ ko génne jigéen bu ànd ak règle wala gisin bu mu ko jegeñ ngir malaka yërmaane yi mën a dugg subhanallah ñu ngi tëdd armoire bi doo sol benn mbubb magasin bi dootu ci lekk dara doom yi dootuñ ko sukkale dootuñ seen salaire du ci lekk mu na am ko teg yonent di wax laa ilaha illallah bul ko ne waxal ndax boo ko ne waxal métit bi dina ko jàpp mu ne waxuma kon mu dee ci ok yonent bi rek moom la yàlla may ndigal mun na leen nit kuy kuy sukuraat waxal ñu wooy Seydina Muhammad ñu ne kii de mi ngi sukuraat fan yi munta dee waaye ñu ngi wax la ilaha illallah mënu ko wax te yonent bi wax ne man kaana aaxiru kalaamu laa ilaha illallah daxalal janna ku baatam bu mujj nekk laa ilaha illallah aljana lay dugg yonent bi ñoo ne ko qul laa ilaha illallah mënu ko wax qul laa ilaha mënu ko wax mu wax soxnaam ne ko kii ana la doon nëbbatu di def ci lu bon te yëguñ ko lu ko téye mu ne ko foo tegg sa tànk teg na fa tànkam xaw ma lu ci moom mu ne ko xanaa lenn damaa juboo tag yaayam mu taxu kër ga bàyyi ko yaayam ma yóbbul ko ndékki mu delloo ma yóbbul yaay bi añ mu delloo ma yóbbul ko reer mu delloo mu ne ko looloo ko téye Aboubacar demal andi yaayam mu dem yaay bi ne ko du ma du ma ñëw moom la tey man fu mu xam na jëm yonent ne Omar demal andi ko Omar jàmbaar mu dem ne ko ci yoon bi wala léegi ma jëf ci yoon mu jóg topp ko yonent ne kii de sa doom la yaa ko téye jéggal ko mu ne yonente bi kii moo doon lekk di ma bàyyi kii moo doon tëdd ci lu nooy may tëdd ci lu ñagas kii moo doon sol yu jekk may sol yu jekkadi kii moo doon lekk yu sedd yu nooy yi may lekk yu tàng yu naqadi démb moom la mu tey moom la fu mu jëm yonent ne ko safaraay adduna dina fay bu yomal xiyam du fay seen ko jëkkal ëllëg muy xawee ko ci teenu safara yi fekk yaa ko ci dugal baal ko njóol diis na de mu ne ko yonent bi ngir sa barke jéggal naa ko ba mu ne jéggal naa ko làmmañ bi bi dafa bëri wax ngay bi dafa la wax ngay dégg ah li ban diina la luy teqale nit nit ak sa baay ak sa la kooku ban religion la tarbiya la kokuban devolmalı, kokuban sivilizasyonlu. Bunun ki yalımı sor. Bunun ki yan yalı, yalı bilene yalı bu hali için yoğun. Ricayi Seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. ñetteel bi mooy sadaqatu sirri joxe dara nëbb ko ba sa loxo càmmoñ amul xamul sa ndoxo day jox lan la joxe ndax sadaqatu loolu tey nit ki boo ubbiwul beneen ne dix mille laa joxe sa du sedd bu ëllëgee nga yow ne yàlla man de daanaa saraxe àddina mu ne dem na ci dëgg mu fay la nga ñëw ci dëgg dëgg ne li nga bëggoon am na joxewoon woon nga wax nañ ko ca mbooloo ma jeex na amoo fi dara yaa alladina amanu ittaqullah wa kunu maa sadiqin nga bàyyi ba xaaji guddi bàyyi ba tànk yi dagg yenn sa saako wàcceel ko daal di ko nuyu ba sa loxo ndeyjoor amul sa càmmoñ dugal képp kuy def loolu dana gudd loolu dañuy roote suñu politiciens yi dañuy def tey ah waaw déedéet ku la jox tey te waxoo ko ci mbooloo bu ëllëgee du la joxal kon joxuñu ngir yàlla tur wut la ñuy wut ah Anda la télévision photo la génne la médiatiser la ci àddina dugal ci ay internet waaye sëriñ si ñoom ñoo def di wax yàlla lu ko neex bu bëttëtee ñëpp wax la lu la neex waaye nga fanaan toog ci kaw kanamu télévision lekk bifteek jongoma bu rafet di la bës nga xaraam ba bët set ah, da nga ci buntu ministre bi nga sa di akaru sim ba bët set boo demee da nga am boo demoon ñu andi la waaye boo sa der topp borom siis bi salle d'attente la lay bàyyi sëriñ si sol nañ nañu suñu bon yëpp jox nañ leen fekk joxu la dara nañ topp yàlla topp Seydina Muhammad boo waxalee yàlla lu ko neex doo waxal kenn lu ko neex te yàlla dina la waxal lu la neex danañ yàlla wax loolu neex yàlla mooy lan mooy salaatu leyl ñëpp di nelaw yow nga jóg di naafila ñëpp di nelaw nga jóg dugg ci ndox mu sedd guy jàkkaarloo fenkam ne allahu akbar yow yàlla yaa mag bu yomal qiyaamatee yàlla dana ne ana sàcc yi ana sama sàcc yi suñu sàcc àddina yëpp daal di jóg mu ne acca jàpp leen safara ngeen jëm yéen yi ma moo ñi doon bàyyi ba ñëpp ndelaw ñuy sàcc yàlla ay rakka képp ku dappate ko di julli guddi yàlla dina laabal sa xol sa joote dana jeex sa naqaar dana dagg loo sumb mu sotti loo jéem mu ant dem fi yàgg say morom dem bàyyi la bi mujj mooy ban mooy bi suñu mbokk bu doon def léegi ree loolu na ñëpp ree dafay wàccee feebar ree dafay wàccee jàngoro képp koo gis muy ñàngal feebaru paralysé moom lay waaw gisoo boo demee ci ñuy jàngale euh, morphologie morphologie ak cosmologie duñ benn boo bëggee ree fukki siddit ak ñett ngay yëngal pour mu tolloog ahadun fukki siddit ak ñett ngay utiliser pour nga sa consommation du bëri waaye boo bëggee ñàng-ñànglu nag juróom ñu naan ko prestige ak ñeent ngay ngay utiliser mu doom ak saydul te saydul mooy rabu àll moo tax ñàngalkat yi feebaru tension ñoom lay yomba dal yàlla yàlla fay la xam naa fii laay aje yonent yàlla Muhammad am na ku ko doon reeloo dama foofu laay jeexale ren ngeen may ma julli fi timis ma jaale yoon ni suuf Euh, baat bi ñu bàyyi ko euh, du ci ma jaar ci yoonu suuf ma yeggale gi ñu julli ñu ngi ci muxtaar bi bu paase woon dinaa bàyyi. Euh, yonent bi dafa daj ak benn waay mi ngi yore ñetti cokkeer xam ngeen cokkeer mi ngi yore ñetti cokkeer yonent na ko may ma bii mu ne ko bii mënuma la ko komay kii. dama koy fayee ji bor boo ne borom xamuloon ne dinaa ko fay ah bii dama koy fayee bor boo xam ne borom xamuloon ne dinaa ko fay yonente bi sallallahu alayhi daal di ree de doy na waar ku lay lebal te xamuloon ne da ko fay mu joxoñ beneen bi ne bii nag may ma bi yoon mu ne ko bii dama koy lebal yi koo xam ne man it yaakaar ma mu fay ma yonente bi ree na loolu de doy na waar mu ne ko may ma bii mu ne kii ku ma dul tàgg du ma gërëm laa koy def mu ne ko li dee maanaa mu ne ko bu njëkk bii sama papa ak sama yaay laa koy joxe ngir bañ may defal xamuñu ne dinaa dund ba tekki defal leen dañ ma doon defal rek di ma lebal tey ma am di leen ko jox sama yaay bu demoon ba seex dara mu seen ma daf koy dindi jox ma ko moom laay fayoo ji boor bi mu ne ko bii nag mu ne ko man sama doom laay lebali xaw ma dana màgg ba tekki ba ma fekkee mu may defal mu ne ko bii nag mu ne ko sama jabar laa koy joxe maa ngi jégalu ci jigéen mu ne ko mu ne ko jigéen mu ne ko waaw mu ne ko boo ko jëloon mbasin bi gën a seer ci àdduna bi dafa la koy sànn ne bii de gis naa ko cimbali mbaliti bi <laughs> mu ne ki ma dul tàgg laa koy joxe ku ma dul tàgg du ma gërëm euh, macha allah mooy jigéen da ngay jënd lu foor ñu mu soofantal ko ne kii diw de def na ko rido këram fekk wallahi gisu ko fenn yow la ko kii rek yal na yàlla fay leen gis naa seen taxawaay yal na yàlla guddal seen fan soxna si eh, sama jigéen la tey coow na ci poor bi lool loolu yëpp pour bëgg ma rek eh, def wax na lu nekk pour ma jàll eh, yal na yàlla fay li ma jéggee géej gi yàlla na nga jéggee noonu siraat coono àddina yëpp yàlla na nga ko jéggee noonu incha allah maa ngi ñaan déwénati ma ñëw fi bi war ma Seydina Muhammad yàlla na yàlla sàmm ñu yàlla na yàlla aar ñu yàlla bu yàlla tas yaakaar yi bi Muhammad xaytullah Muhammad salaatina wasila